bu ngeen gisee toogaay bi xam ne am na lu ko waral muy suñu mbokk suñu mbokkum bopp suñu mbokkum jullit ah, mu nekk ci réew mi daan liggéey daan dimbale it mbooleem sénégalais yi nekk ci réew mi depuis 2010 ba nii may wax ak yéen képp koo xam ne am nga précaria wala nga doon dox nationalité wala nga am denit ci dëkk bi dox na ci wax na ci suñu borom dogal mu tawat ci biir tawat googulee lañu ñu bëgg a jox suñu micro ki nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Mati Lay ah comme ni ko Serigne Assane Baye Fall waxee jataay bii nag tey dafa doon jataay boo xam ni jataay soññee la soññee gi nag mi ngi jëm ci sunu mbokkum taalibe mu nekkoon ak ñun fii nekk ak ñun fii ànd ak ñun ci liggéeyub Serigne Touba bi te di ci jàmbaar lool ànd ak ñun ci liggéeyu association sénégalais yi di ci jàmbar lool ah di liggéeyal sénégalais yëpp ci wàllum jàppale leen ci wàllu kayit woowu ñuy wax précaria ñu man koo am yàlla teg ko nattu nag mu xaw a jagadi tëdd hôpital ab lim bu am solo nag war koo faj ñuy sàkku ndimbal ci bépp taalibe bu nekk ci réew mi di yeewoo ci Argentine ak li ko wër ba ca Brésil ñu la ci soññ di ci jiital suñu bopp di sàkku ci yéen ndimbal ngir jëmmi yàlla ji ak jëmmi sëñ Tuubaa ji te ku koy def nga def ko ngir jëmmi seen bi rek tax ndax moom day buñ ko fayee bor ba dara mu taxaw ndax kenn ku nekk ci réew mi rek sonnal na la bis yaakaar daa ne ah ñu ngi leen ci soññ di sàkku taalibe bu nekk ci réew mi mboolem dawaayir yi ne ci réew mi yëpp fu daayir ne fu jëwriñ daayir nekk ku seetaan vidéo bii mooy sa mooy sa soññ ci yow yaag mbooloo ma nga jiite murit bu ne wala jullit bu ne ñu ngi lay sas 1000 peeso te jëmmi yàlla ji rek tax boo ko amul tamit te mën a am 500 peeso wala loo mën a am ngir jëmmi sëriñ bi ah, nga joxe ko jëwrin yëpp ñu dajale ko ki jiite liggéey bi nag mooy sëñ Abdourahmane Ndiaye mi nga xam ne moo jiite wàllum sociale mi fii ci Touba Argentine ak ñi ko àndal ñëpp ku mel ni ki sëñ Maam Xaas Ndiaye mi nga xam ne ci trésorier yi la ci wàllum fédération daayira Argentine bi kon ñooñu ku jokkook ñoom lépp loo dajale rek mën nga ko jox ñooñu boo leen ko joxee kon dana yegg si incha allahu fépp fub daayira ne nag yéen daayira ci àll bi mboorom taalibe fépp fub taalibe ne ci réew mi rek ñoom la ciy soññ di ci sonn tamit suñu xarit yi nga xam ne ñoo féete ca Brésil ku demee ni ki sëriñ Cheikh Ndiaye jëwrin buñ ko tuddee rek mel na ni jëwrin te tudd nañ jëwrin yi nekk ci ah, Brésil gépp ñoom it ñu ngi ki leen ci sàkku ndimbal ngir jëmmi sëriñ bi lu ci waay mën a barkeeloo rek bu fexee ba jot ci ba Cheikh Ndiaye jot ci rek incha allahu ah dana agsi ndax it seex moom mooy ki nga xam ne mooy jëwriñ sëñ Tuubaa ji nga xam ne moo teewal maanaam eh, sëñ Tuubaa ca Brésil kon ñu ngi ko ciy soññ di ci soñu jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite fédération argentine bi ku demee ni ki jëwriñ yi nga xam ne mooy jëwriñ ju mag gi muy sëñ ba Géey ak sëñ Bamba ak mboolem képp koo xam da ngaa tënku ci association bi ñu ngi la ciy woo ak mboolem bépp sénégale boo xam ne da ngaa ne ci sa kër te ko ci benn dayiraat ñu ngi la ciy woo di ci woo tamit sunu mbokk taalibe seex yi seen daayira bi ñu ngi leen ciy soñ ci njiital sëñ Mouhamadou Ba nga xam ne ñun ak ñoom benn lañ ñu ngi leen ciy soñ mboolem taalibe seex yi ne ci réew mi yëpp tamit ñu ngi leen ciy soññ di ñaan daal képp ku dégg euh, annonce bii ah nga dimbali ñu ci te jëmmi yàlla ji rek tax